am lu ñuul am lu jaune caatu ngewal face à Ama moo ñëwoon ginnaaw noonu boobu mooy sixième combat de la soirée aujourd'hui mercredi 10 juillet 2024 ici à l'arène le promoteur le promoteur Bamba Milano à la tête de la Milano production mu organisé Ama Yé et eh, Ama pousse na ko dafa bëgg mu génn waaw waaw caatu ngewel bañ ko caatu ngewel fàqen ko rëpp na jógaat Ama Junior Ama Junior attention fàqen na ko rëpp na na Ama Yee Ama mi ngi doon attention fàqal na ko Caatu Ngéwél Caatu Ngéwél fàqal na ko ñetti yoon muy di jógaat Ama Ama si yoon xam sa cosaan mi ngi door dafa bëgg mu sigi waaye Caatu Ngéwél fi mu jàpp baax na Caatu Ngéwél fi mu jàpp wóor na Caatu Ngéwél fi mu jàpp baax na ronu na ko waaw caatu ngewel li muy tante bu anto caatu ngewel mi ngi caatu ngewel attention mbot ko caatu ngéwél mbot ko ama teggi ko ey ey ey lu xew dara amul nee na dara amul nee na dara amul waaw waaw waaw waaw eh day dem ci médecin ba dafa blessé caatu géwal ki demoon ñëwaat na waaw waaw caatu géwal ñëwaat na monsieur l'arbitre sifflé waat na génnaat na seen diggante monsieur l'arbitre sifflé waat na génnaat na seen diggante waaw waaw ama yee caatu géwal yee boobooy sixième combat de la soirée tey la tey mercredi 10 juillet 2024 ici à l'arène nationale Le promoteur Bamba Milano à la tête de la structure Milano Production organisée. Waaw waaw ca. ñoo ca. Ama yee. Caatu Ngéwal yee. Sixième combat de la soirée. Attention, dos droite. Attention. Waouh, waouh. Sixième combat de la soirée. Thiatou moo ñu woon noonu. Thiatou Guéweul moo ñu woon noonu. waaw waaw avertissement avertissement avertissement Caatu Géwël Malick Ngom nee na ko dafa damm baaraam bul tee benn baaraam baaxul bul tee benn baaraam waaw waaw waaw recevoir nañu Ama yee attention Caatu Ngéwél Ama ñu ngi xeex mën na ko attention

ci maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci combat bi commencé yàgg rek combat bi commencé yàgg combat bi commencé yàgg rek diggante Ama Junior ak Thiatou Guewel Ama Junior Thiatou Guewel waaw aja sama gaay mi ngi nice diggante Thiatou ak kii di Ama Junior sixième combat de sixième combat de la soirée c'est la mi-temps c'est la mi-temps c'est la mi nañu cinq minutes c'est la mi-temps c'est la mi-temps. wax naa la Malick waaye leen ñu dem bëre ca côté saako da ngay jot troisième avertissement yéen ñaar ku nekk trois avertissement Ama Junior ak Caatu Ngéwél Ama Junior ak Caatu Ngéwél Ama Senior ak Thiatou jàppante ñoom ñaar Ama Senior ak Thiatou Nguéweul Ama Senghor ak caatu na ko mu wàcc caatu ngéwél fàq rëpp na ñaari bëtu oomam ama senior caatu ngéwél ama senior ak caatu ngéwél ba xaamaa bu xam sa cosaan la ñoom ñaar seen bërëb bi yàgg na tamit ama siñoor ak caatu ngéwél ba léegi Ardo Ardo ku nekk am nga trois avertissement Ardo daa Jules Baldé mi soxor na de acca nga ñetti avertissement ku nekk nga ñetti avertissement Ama Junior ak Thiatou Guewel Jules Baldé de amoon na doom ji fi mu ne ko boo buñ la daanee dinaa la rey ama siñoor caatu ngewet ama siñoor ak caatu ngewet Ama Junior ak Caatu Ngewel ba léegi Ama Ngewel bali du jeexee par avertissement bokk ñaar ñii duñu bëre yow Ama xanaa Jules door ko arbitre dina siffler kay dañuy amoon avertissement bëre leen waaye yéen a moom waaw waaw waaw ku nekk am nga carte mu des benn su ngeen bërewul rek ñu def leen nul ku nekk dem sa yoon moo mën a dem ñibbi waaw waaw Ama Junior ak Caatu Géwél Ama Junior ak Caatu Géwél Ama Junior ak Caatu Ngéwél Ama Ama say waa kër yëpp nee nañ nga bëre ñu ngay cay gay kooku na la Ama Junior ak Caatu Géwél Ama Junior ak Thiatou ba léegi daa baa ngi jeex ne kenn xaaru leen xale yi dañoo gaaw a sonn ñoom ñëpp a Ama Junior ak Thiatou Nguéweul ama Ama Junior ñëwaat nañ ginnaaw bi ñu bare 10 minutes ba pare Ama Siñoor ak Caatu Ngewel Ama Siñoor ak Caatu Ngewel Ama Siñoor ak Caatu Ngewel Ama Junior ak Caatu Ngewel nga koy jéem a Ama ngay dellu ginnaaw Jules Baldé la ba dóor ko waaye ba tey dóor a ko Ama Ama Junior ak Caatu ñaari xale yaa nga ca Ama Junior ak Caatu ay ca ba léegi ay ni ngeen laaj te moom liggéeyoo seen naa te moom liggéeyoo ama siñoor ak caatu ngeel caatu ngeel la ko jéem a ortal ama siñoor bañ a jël na tànk ba waaye tegaat na ko ama siñoor ak caatu ngeel ama siñoor a ngay dugal coup ama siñoor a ngay dugal coup trois minutes ngeen am minute cinquante dem na dama juum une minute cinquante awa ah, siñoor a cat na wéyal ñaari bu leen ma reetaan loo waaye dama juum aja mu ama ah, siñoor caatu ngewel ah, mu ngi koy jéem ama du ko nangu ama la lay ama siñoor caatu ngewel ama siñoor caatu ngewel ba léegi ama siñoor caatu ngewel ñoom ñaar ba léegi ñoo ngi ci biir ama junior caatu ngewel ama junior caatu ngewel ama junior xoolal ma raag ba ñoo ngay raag waaw Junior Caatu Ngéwél ba léegi tas na ko jeex na jeex na nil la ku nekk quatre quatre quatre quatre avertissement nga am jeex na yaa kaw bu ndaw jaago jàppante nañu Yankabu Ndaw nga koy jéem a takk Yankabu Ndaw nga koy jéem a takk ndeysaan dugal na benn loxom ca ginnaaw ngéem la moom Yankabu Ndaw Boy nga téye ca loxo ba xam na ne fa mu jàpp baaxul bu la bëttee nga waaru Boy Ndiago da koy jéem a bëtt Boy Ndiago Yankabu Ndaw Yankabu ee bañ na Yankabu na de Yankabu Ndaw Boy Ndiago Yankabu Ndaw yankaw bu ndaw mi na Boy Niang yankaw bu yankaw bu ndaw la ilaha illallah na ko jël ba rëy na la neex waaw waaw waaw waaw ñambi ñambil jël ba fowal waaw waaw <laughs> yankaw bu ndaw Boy Niang ba yankaw bu ndaw yankaw bu ndaw kii yankaw bu mag la waaye yow gis ngeen xale bi da doole doole doxul jàmm oxo waaw waaw booy njaago ak yankaaw bu ndaw aje Zarko Junior Zarko Baldé numéro 2 Zarko Junior Zarko Baldé numéro 2 rakku Alaaji Mbay la Jacob Baldé numéro 2 Jacob Baldé numéro 2 ak Zarko Junior Zarko yow li nga ëppee li nga ëppee kii bari na de CNG nañuy xool différence de poids yi. Zarko Junior Zarko Junior ak Jacob Baldé numéro 2. Zarko Junior Jacob Baldé numéro 2 laa ilaaha illallah Zarko ci sa tànk yi la jëm day dóor rek dugg ci sa tànk yi su dóoree garde bi day ubbeeku bu ko defee mu dugg ci tànk yi loolu la def xoolal lu muy bëre nii Zarko ak Jacob Jacob dalay daan eh dara

spécial bee ñëw Siteu ngi noonu di defaraat Senghor bi Cheikh Sita nekk seen ndeyjoor ñaari Sita la Cheikh Sita ak Sita 205. Cheikh Sita ak Sita 205. Adja Cheikh la lay indil wa tëgg boobu neex na de Sita 205 ngay arrière. Siteu 205 kay arrière Cheikh Siteu ngay dox ci kawam Cheikh Siteu Siteu moo leen won ginnaaw Cheikh leen kanam Cheikh Siteu seen ndeyjoor loxo ya la door Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu Cheikh Siteu ak Siteu 205. Cheikh Siteu ak Siteu 205. Cheikh Siteu ak Siteu 205. Cheikh Siteu ak Siteu 205. Cheikh Siteu ak Siteu 205.

spécial baa ngi noonu Cheikh Siteu ak Siteu 205 arbitre sifflé na Cheikh Siteu ak Siteu 205 arbitre da ngay wax ak ñoom xanaa sànq wax ak ñoom li laa mu nangu ak li laa mu bañ cey Malick Ngom le grand arbitre Cheikh Siteu ak Siteu 205 ndeysaan Milano Milano production la mu nekk Bamba Milano ndeysaan Cheikh Siteu ak Siteu 205 arbitre sifflé woon na Siteu 205 ngay dox ci kaw Cheikh Siteu Cheikh Siteu ngay arrière Cheikh Siteu dugal na coup génnaat day jéem a ubbi buntu nee naa leen pàdd ak dóor ak lépp ci buut Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 waaye eh, Siteu 205 danaa dégg ne xiir daa bokk ci lamb <laughs> bete ku yore fas Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 ba léegi ñoom ñaar ñoo ci digg géew bi ñoo koy léewtoo léewtoo bu dul jeex nee naa leen congu leen songu buntu la door buntu la padd buntu la moom it buntu la Cheikh Siteu cey Siteu man Siteu daal jaaxal na Cheikh Siteu journée ba Milano la Cheikh Siteu ak si 205 ñoom ñaar jàppante nañ jàppante nañ Siteu 205 ak ñooy jéem a jàpp Siteu 205 mu ngay bëgg a génn mu ngay dóor Cheikh Siteu ak Siteu 205 boo mu siggi pour mu am fu mu jàpp Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 jéem na koo paat demul Cheikh Siteu ak Siteu 205

Cheikh Siteu ak Siteu 205. Cheikh Siteu ak Cheikh Siteu ak Siteu 205 ba léegi ñoom ñaar yàgg na yàgg na yàgg na aca Bamba Milano moo nga ne la ci ginnaaw Milano production Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 205 xeex Siteu ak Siteu 205 génn na moom Siteu 205 xeex Siteu ak Siteu 205 diggante ak Siteu Siteu ñoom ñaar ku nekk ngay wut foo jàpp Siteu 205 nga koy bëgg a takk Siteu 205 nga koy bëgg a takk Cheikh Siteu ak Siteu 205 Cheikh Siteu ak Siteu 2 caxabal caxabal daan waaw waaye xoolal mbooloo mi waa lii la la nii waaye yow jëlal ma mbooloo mi eexee Siteu 205 Siteu 205 nee na ko ñëw leen yéen ñëpp ko daan leen nee na ñëw leen yéen ñëpp kontaan leen laa ilaaha illallah waa lii lan la nii xale bi mbooloo bi bari arbitre sifflé na ci diggante Tapha Leer numéro 2 ak Bouss Kara Tapha Leer numéro 2 Bouss Kara Tapha Leer numéro 2 grand combat grand combat ndeysaan heure yi fekk jóge nañ fi bu waaye tey combat yi daa yéex Tapha Leer numéro 2 ak Bouss Kara Bamba Milano moo fi woote woon ñu koy wax Milano production Tapha Leer ak Bouss Kara Tafaleer numéro 2 ak Ouz Kara Tafaleer numéro 2 ak Ouz Kara Tafaleer numéro 2 ak Ouz Kara Tafaleer numéro 2 ak Ouz Kara ñoom ñaar ñoo ngay lewtoo kenn dóoragul kenn xàcceegul nee naa leen dóor ak padd ak xàcc yëf ji ubbi buntu la bokk day ubbi buntu la na kenn sànni kuuma xool dafa leer numéro 2 ak Ouz Kara leer ak Ouz Kara dafa leer numéro 2 Tapha Leer numéro 2 ak Ouz Leer cokkaas na waaw cokkaas buntu Leer numéro Leer ak Ouz Kara Aleer ak Ouskara dafa leer ak Ouskara ba léegi ñoom ñaar ñu koy lewtoo lewtoo bi yàgg na dafa leer ak Ouskara Tidiane daa fa koy arbitré nee na bëre leen bu ñu fi guddeel dafa leer sifflé na ak Ouskara dafa leer ak Ouskara dafa leer ak Ouskara dafa leer ak Ouskara Falera ak Ouskara Falera ak Ouskara ba léegi Falera ak Ouskara jàppante nañ ñoom ñaar dafa leer nga ca suuf Ouskara nga ca kaw ndenge ñante Ouskara door na pour dafa leer siggi dafa leer Ouskara xëcc na ko taf ko ci boppam demul Ouskara ak dafa leer ak dafa leer ak dafa leer mu ngi ba bëgg a bëtt bañ na Tapha Leer takk na ko Tapha Leer takk na ko na ko da koy suru xol na ko dara amul dara amul lu xew Tapha Leer daan na Ouskara aca jeex na Tapha Leer daan na Ouskara Tapha Leer daan na Ouskara neena na ngeen tàcc ko waaye xooleen lii moo ngay sulli moo ngay sulli moo ngay sulli moo ngay sulli la lay indil man daal way bii daal daal dafa xew si jamono daal waaw ama la lay indil bii dafa xew si jamono daal